miiras dem doy na waar man mën naa comprendre ngeen doy na waar voilà Lamine dama naan la sa rubrique fu mu toll parce que dañu war dugal Dabida pour euh, ñu wax wax sa bi wàllu politique euh, DGE ak Sénat voilà bu ñu continuer li nga xam ne moo di people xam naa dañ koy souhaiter heureux ménage d'avance mu nekk Amina Poté nga xam ni day day marié wu dimanche incha allah quatrième mariage am bi moo nekk quatrième mariage am est tamit nag ñoom amuñu braaloo aras. parce que ñu ba tey. xanaa lii de lii de jooy la jooy la. mais jooy la ñun tamit ñun tamit jaraguñu ba tey xanaa tamit nag li la li moom sëñ bi tey oh, da nga day mari wala mari nañ ko pare dimanche ah dimanche. dimanche non côté nekkul bi mu ngi France. tey la vendredi tey la vendredi du dara loolu dara dara nekk si dafa daas Nabou Daas tey moom nee na dafa rusati tànt buntu kër yaayam parce que moom chaque année rek mu tànt ñu mayee ko moom tamit sonn na nee na chaque année rek day duube gars yi ah nee na nee na moom dafa rusatee sax moom tànt parce que chaque année malaaka mi nekk Nabou kaay ñëwal Nabou Daas la day ruube quoi moom moom da ko baax la franchement parfois dina wax yoo xamante ne franchement dina lii quoi mais côté moom heureux ménage dañ koy wax. sëy moom sëy moom voilà mi ngi noonu nag kese loolu rek nga. ñi njëkkati woon loxo moo bari. waaw mi ngi noonu mi ngi noonu tamit loolu tamit foog ñu préciser ko voilà. waaw xëy na ñi njëkkati woon moom moom pote de. waaw waaw jigéen la de macha allah jigéen la de. am leen xel nag ngeen may ñi demagul nag. dëgg loolu waa tamit duñu may ngeen am xel. ah mais am leen xel may ñi. ah mais dañoo war a may man moom génnee dugaatagul

alu àlla dama def si loolu yaa ngi si jàmm doo fay defal ndànk de defal ndànk xaaral yow yaa mën a fayeku laata la vingt cinq mille pour ma dégg si de ma ne kii waaye yow. ah kon yow yaa ji daf la doon dóor daal la doon dóor. c'est-à-dire yaa ji daf la doon baraan. muy dégg jëlal sa doom loo am yaa may rey. <laughs> am naa ko ma am naa ko ma gis. ah non

ah tamit. dafa lool la fa daal argon. yow challenge bi ñu naan ki ma doon gis naa ko ñëpp waaw loolu ko yàlla ah, de moo ko yor de te dafa dafa elle est très belle. macha allah buy dox digg France. nga war na ko or antenne parce que la bari la dëgg la. waa léegi looy parce que il faut ma am xale bu rafet kaar macha allah ay jikko ja rafet na fay xëy fajar avant mu hmm, liggéey boobu la war a ñëkk a xool jikko ju rafet ko ah boobu la ñu war a a xool nawlewul suy bëgg du tàggoo ah? loolu daal conseillaatul du yaa la ca nekk bàyyi yaay jëkkër du morom ku si bëgg seen fonk sa goro maman fonk na goro mais il est amoureux ba tegal xool xasan na te wax ko su ko ndax baaraam jotu ko maman gis ah, na leen maman man ko def ibel bis ah, kon na gaaw bon kon kii Amina Poté mi mu may leen ci yéen ñi nga xamante ne demagu leen ak ñi dem génn te ah. duggaguñu wax. waaw secret bi secret bi moom war nañu koo jox. Mm. secret bi war nañu jox surtout nag man ak yow. te ñu ñaanal ko tamit bi yoon mu mu nekk bu mujjee bi. <laughs> ah àllay bari def soxna Marie. waaw ñu ñaanal ko ah? bi yoon ñu ko ñaanal tamit bi yoon. bu ko yàlla dogalee mu nekk. amiin amiin amiin waaw loolu moom ménage à Poté voilà donc euh, le meilleur lañ ko ñaanal. la ko gisoon de. ah ma ma gaaw a ñëwaat. xam naa boobu nga. ah waaw ah waaw xam nga nit na moom mariage moom projet la projet de. société la ah projet la te moom yàgg yàggoon na di mu ngi si ay projet de mariage. Mm-hmm. Mm-hmm. yàggoon na di ko wax ñu di ko ñaanal rek reménage di ko wax ni nañu wàll si. Mm. te wax ñu secret bi bu dee wérd la mu jox ñu ko ñu koy. wérd loolu ma jaaxal mm. defee ngeen si seet ba léegi amaat jëkkër nii. ko xam doon def lu simple à la lisière mais il faut ngeen de loolu dama ne. comme ku dem ba dem dem dem Kër Ndiallo fi mu laa. <laughs> dem na mu ñëwaat nga def lu simple sax. waaw loolu laa loolu laa mais jëkkër yi du benn je suis pas d' accord euh, kii nag respecté ñu nag àll. waaw loolu d' accord naa dama ne eh Amina Khouta mii bu ñu waxee dëgg te yàlla tax. xoolal sol naa solo bu sol ay caras sax si na sax. non waxuma mais mais est ce que xam nga xam nga est ce du du yàqu. déedéet jigéen valeuram bu yokkul rek du wàññeeku àlla. bu question dem nga film la nga. waaw waaw jigéen ma valeuram bu yokkul rek du wàññeeku jigéen bi sax jigéen dara jomb mu dëgg la dama ne exemple <laughs> mu simple loolu daal waaw bëgg-bëgg la xam nga jour de mariage bu ne rek jour euh, jour jour bu neex la. jour extraordinaire la ka nekk la nga yéeg sa moom ak ah, noo koy dundee rek. dëgg la dara nekk si bëgg-bëgg la rek sax ñëpp xam nañ ne c'est une grande dame en Habib mi teg ñu ngi koy nuyu bu baax.